Voilà, c'est ça. jërëjëf président Boubacar ñoo ngi lay gërëm bu baax di la sargal di la wax ne bisu tey bii day bis bu am solo la bis la boo xam ne histoire dina ko retenir ci politique gu Sénégal man mii di wax ak yéen day ku yàgga ñaan bis bi am ci at yii ju ñu weesu li tax ma def ko nag li tax ma ko doon ñaan mooy fekkee lu bari comme ni ko président Boubacar waxee ñi war a ànd rek ñoo war a ànd kii day koo xam ne ku ko am jàpp naa ni boo tëddee di nga nelaw booy ànd ak nit sa ànd ak nit dangay ngay ànd ak koo xam ne yow doo gestu bi xalaat naan dina la jam paaka ci ginnaaw wala déet da ngay ànd ak ku wóor dangay ngay ànd ak ku am dignité waaye dangay ngay ànd ak it koo xam ne dina la mën a jàppale bu génnee xam-xam waree jot du ma fi nekk di wax naan Boubacar am na xam-xam de Sénégal gépp xam nañ Afrique gépp xam nañ ni Boubacar ko am xam-xam du ma fi nekk di wax naan Boubacar ku bëgg réewam la Boubacar bu doon boppam rek moo ko ñor yaakaar naa ni def politique ku mel noonu nag ku ko am xamal ni napp nga jën wu rëy rëy rëy rëy dañ lay gërëm ci sa taxawaay dañ lay gërëm ci ni nga yàggee gunge président Ousmane Sonko wax nga dëgg 2017 ba léegi loolu du lu ndaw sa fait sept ans ñu bokk convergence de vues lépp loo xam ne lu war a jëmale réew mi kanam la ñoo ko bokk ci gis-gis 2019 rek laa leen di fàttali wax na ci tuuti moom waaye li mu leen waxul mooy ñi joxoon Ousmane Sonko kàddu ne ko bu ñu amul parenage yow la ñuy jàppale du fi jeex tey jii ñoom ñoo yore rajo yeeg télé yi di yuuxoo ko wax rek Boubacar a été quasiment le seul à avoir respecté cette promesse le seul moom moo taxaw ne Ousmane bu ma jàllul parenage bu soobee yàlla yow laay jàppale ci élection présidentielle yow boo jàllee waaye nag mënuñoo bett ndaxte. nit boo bokkee moom gis-gis yéen a ngeen bokk jëmu faw ngeen ànd looloo tax lui il a tenu à respecter cette promesse ba 2019 il a joué un rôle extrêmement important dans cette campagne maa ngi fàttaliku débat yu rëy ya mu daan def ba muy wax ak waa ji naan ko damay bañ nga juum El Hadj Kassé <laughs> pour ne pas le citer El Hadj damay bañ nga juum yaa ngi juum donc pour vous dire simplement que voilà un homme de valeur un homme boo xam ne ku sañoon am ko sa wet man day ba ma gisee conférence de presse bi ñu annoncé ko yàlla xam ne ni bëgg naa mbégte loo xam ne gëj naa ko bëgg xëy na le 24 mars 2024 laa ko gëj a bëggee sama xol moo sedd ndax jarul sax may wax avant élection yi jéego yu ñu dox pour ànd ak Boubacar mii lu ne def naa ko man personnellement ndax damaa xam valeur nit ki boo xamee valeur am su fekkente ni yow jub dong moo la tax a jóg ak sa réew jëm kanam kese moo la tax a jóg dinga xam sa tànku tubéy pour ànd ak moom ndokk yàlla bi yàlla tëralee mbir mi tey ji muy un jour historique taarixu Sénégal dina ko téye dina jàpp ne bis ni ki tey Boubacar dina dugal loxoom ci lii nga xam ni moom la ñuy sumb au lendemain du 17 novembre 2024 ñun sénégalais yi li ñu bëgg mooy Boubacar te nga jàppale ñu ci bu baax a baax croissance ruusitu mburu bu mu amati li ñu bëgg mooy une véritable croissance parce que nag ñoo yore le continent le plus riche du monde ba pare di abriter les populations les plus pauvres du monde kii am na xam-xamu nu mu mën a génnee. ndoolu Sénégal ci génne Sénégal ci ndóol ba pare ñu fekk ko ci ay raay Boubacar euh, wax nga ko àddina moo demee noonu nit da ngay ànd ak moom yenn saa yi ngeen am divergence yenn saa yi ngeen daje yenn saa yi tamit ngeen ak ah, ku ne jël sa chemin waaye toujours ngeen bokk même gis-gis waaye li ma wóor ba wóor de mooy président Ousmane Sonko di président suñu parti jox defal na ma ay secret yoo xam ne dinaa la ko déey ci kanam mhm. yim ma mës a defal maak moom suñu waxtaan mhm. loolu gën naa tax ma jàpp la li gën a tax ma jàpp la mooy fi la président Ousmane Sonko teg président Ousmane Sonko la nga ko defal deux mille dix neuf loolu yegg na ci xolam ba nga xam ne wóor na ma ni bu jëloon nguur gi deux mille dix neuf xam naa ne doo sori premier ministre loolu moom wóor na ma wax nag exactement li ñu waxante ma ak moom kon président Boubacar dama lay gërëm di la sant encore une fois di gërëm sama secrétaire général mi nga xam ne du tàyyi du sonn guddeeg bëccëg mi ngi ci xeex bi gudd ñépp gis yéen waa presse bi yéen ko njëkk gën a xam ndax xeex bu rëy bi mu xeex en deux mille mu yore parti bi nag moment bi nga xam ne président Bassirou Diomaye nekk ci xat-xat moom mi mu yore ko yore bu mucc ay wax dëgg yàlla jooyuñu woon secretaire général ñi ngi koy gërëm bu baax di gërëm nag mbooleem responsable tabax construire président nag crème nag nga yore ah bi bi nga ma présenté les membres de ton parti ah j'ai compris pourquoi ngeen am dayo bii ci wàllu politique fii ci senegal ku gis monsieur si gis sama xarit secteur général mii gis ñii fi nekk ci ginnaaw xam ni parti bi du parti bu ndaw parti bu mag a mag a mag ngeen am benn parti ëpp leen solo ci réew mi kon book ñun bu ñu amee allié yu mel ni yéen suñu xel dana gën a dalate encore te gëm nañu ne au lendemain du 17 novembre 2024 Sénégal dina jël yeneen yoon yoon woo xam ne Afrique yëpp dinañ ñu ràññee ndax Sénégal dina nekk ci raay du développement asalaamualeykum wa rahmatullah le journaliste concerne la sécurité du président Macky Sall je voudrais simplement vous dire que depuis le 2 avril 2024 l'état de droit s'est totalement installé dans notre pays et sur ce tous les citoyens de ce pays, quel que soit par ailleurs leur rang, ont droit à une sécurité, une sécurité totale. Cependant, cet état de droit également dit que les citoyens de ce pays sont tous assujettis à la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ceux qui ont eu à gérer les destinées de notre pays ne peuvent pas échapper si jamais effectivement il y a quelque chose qui leur sont reprochés, ne peuvent pas échapper à la justice de notre pays. Maintenant, libre à la justice, parce que nous sommes dans un état de droit, nous avons les pouvo des pouvoirs qui sont indépendants les uns vis-à-vis -vis des autres, mhm. libre à la justice maintenant de dire si le président Macky Sall a eu des responsabilités à assumer face à l'assassinat de plus de 80 jeunes, libre également la justice de dire si la gestion des deniers publics l'ont été de façon transparente par ce dernier. Mais ce pour ce qui concerne sécurité, je puis vous l'assurer, elle sera assurée par les services de l'État, puisqu'étant un citoyen de un ancien président de la République. ma bëgg a wax ne depuis le 2 avril 2024 bi ñu installé président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci bopp réew mi ba léegi état de droit dëgg la ci réew mi c'est une réalité ba tax na képp kuy citoyen état boobu dina utiliser dina jël moyen bu ne pour assurer sa sécurité surtout nag su fekkante ni da nga nekk ancien président la république mm-hmm. waaye bépp citoyen tamit état de droit boobu moom day wax ne képp kuy citoyen ci réew mi da nekk ci suufu loi maanaam loi su la soxlaa dina la woo laaj la la question maintenant qu'il faut se poser li nga xam ne moom la ñu war a laajte mooy ndax président Macky Sall am na responsabilité ci ndaw yi nga xam ne ñoom la ñu rey ju te ñu ëpp juróom-ñetti fukk ci période pré électorale yi ndax président Macky Sall bañ ko dénkee alalu réew mi ñoŋal na ko wala déet ak yan mbir la président Macky Sall def te méngoowul ak yoon loolu nag justice bi nga xam ne benn pàcc la ci pouvoiru ci pouvoir yi te ñépp xam ne fii ñu toll nii ñetti pouvoir yi nga xam ne ñoo nekk ci république yi bu ci ne président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak ñi mu àndal di lañu fexe ba ku ci ne am sa indépendance justice nag bu jàppee ni président Macky Sall bu ñëwee fii war na koo laaj ci loolu yaakaar naa ni munu cee échappé loolu daal laa amoon ci tëkk lu ma waroon a tontu di leen gërëm encore une fois président jël jërëjëf yal na la yàlla may gudd fan wér ak kattan gi nga jàppale président Bassirou Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko ba ñu jëlee Sénégal ci rang bi nga xam ne mooy rang bu ñaaw bi ñu ne vingt-deuxième pays le plus pauvre du monde Nous avons l'obligation de changer le visage de ce pays-là et nous comptons beaucoup sur Tabar Construire et sur le président Boubacar. Je vous remercie.